di gunal day garam di way ak a si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox Seyxi Bamba jaarama jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak ko may soxna jaaram soxna baaleeg maam bu zambaañu le jaara am nga tawfeex ku gën fa bal tudde jaara turandoo jaara ajjanaay wàccuwaayam koo mën a doon santal ci gi fi jaara bu zambaale manoon ci kër ci jaamoom fu mu jaar ni ñayi mu roy soxna jaar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 أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العظيم mbokk yi noo ngi leen di nayu nuyub lislaam di leen siyaara siyaara bu nu tibbee ci sunu xol te di leen ñaanal ñaan gu ànd ak yaakaar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 sëriñ Ishaq mbakk mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi te yàlla dogal tey mu am ngant tànn kenn ci njaboot gi yebal ko fii mu teew fii mu di cheikh Mouhamadou Abdullahi ibnu cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh Mouhamadul Bachir xam ne mooy imaami jumaa ji bokk ci jëwriñu sëriñ bi sëriñ Ishaq tànn ko yebal ko mu ñëw teew fii fekk liggéey bi nga xam ne baaxoon nañu ko def saa yu jamono tolloo fii jaajëfal bu baax sunu bokk ya nga xam ne ñoo féete poroxaan yore daaraay maam jaara ja te lii di lenn ci seenub liggéey xam ngeen ne nin ko baaxoo defee 2005 bi daay bi daara ji tàmbalee ba léegi at mu jot danañu tànn ñenn ca ña mokkal andi leen fii e, gaaral ko sëriñ bi loola itam sëriñ bi da cee wane yitte ju mat sëkk ndax xam ngeen ne xale ki koy jàngal mën na koo téyal waaye sëriñ bi yitte ji mu jox njàng mi tax mu tànn benn euh, benn kuréel boo xam ne ñoom lay ñu ñoo lëkk ñoo ne fii ci Touba lëkkaloog daara ja di saytu gone ya di leen nemmiku saa yu ñëwee fii nag ñañu tànn bu ñu indee fii sëriñ daara yi ñoo leen di téyal kenn ku nekk danga nga kenn ku nekk danañ ko téyal fukki sib ak juróom fukki ñeent ñeent nit ñooy seq kenn nit kenn ku ne téyal ko fukki sib ak juróom loolu lépp nag li muy wone mooy xam ne sëriñ bi njàng mi yitteel na ko mokkal ak gone yitteel na ko ak seetlu njàng mi loolu itam nag euh, bokk yii fi nekk nga xam ne ñooy laj na si bi sëriñ Muntaxa Pakala sëñ Moustapha Diop Ndar ak bokk yi ko àndal yépp sëñ Mbàkke Abdourahman ñooy saytu loolu bu ko defee ñoom tolloo fii nag ñi nga xam ne euh, seenu tari wër na sëriñ bi am ay neexal yoo xam ne li leen koy jagleel loolu moo waral jataay bii noo ngi ci sant bu baax di jaajëfal bu baax kilifa ya sëriñ Aboo jaxatee ak soxna maam Awa Dem ak ñu ko seqal ñëpp di leen ñaanal yàlla dafa leen lu ko we seen jort lii rek moo doon bëggug Cheikh Moustapha bi muy sos daara ji dafa waxoon ne soxna jaaratullahi Mariama bu fi nekkoon ku ko tudde doom di nga ko ko jox te dana ko yar dana ko jàngal loola sabab nag mu wutul ko daara ngir ñu jàngal xale yi yar leen boo liggéey ñu doon ay maam jaara loolu rek la ci namoon yàlla nga ko ci defal ndam itam nag yàlla na jëm kanam ci barke Serigne Touba gone gii ngeen gis mu tari léegi maam jaara soose la tudd way juram tudd alaaji kaatim soose loolu xam ngeen ne am na lu muy am na lu muy signifié lu ñu mën a jànge lu baree baree bari ndax li liñ ciy dégg rek mooy maam jaara dafa daj jamono ñépp nga xam ne sunu borom xiir na leen ci liggéeyal Serigne Touba ci soxna jaara nga xam ne turam yi foo foo foo ko takk rek weesu na ko loolu moo doon jubloog Serigne Moustapha sàkku ci woon xaj ak seen kere bi muy dalal ñaari xale yi mu dalal kenn ki di sëtam kenn ki xamu ko ca sant yàlla wane ni moom ak bëggam nangu na ba noppi ndax la lii rek wane na ne li may def li liggéey lislaam rek laa ci jublu waaye wutuma ci xaj ak seen loole nag mooy dox ba tey jii ñu ne alhaaji Kaatim Soose mi tuddee maam jaara doom maam jaara Soose doomam moo toog fii tey di yi loolu nag wax dëgg yàlla dal na xel sedd na xol loolu moo doon yittey sëñ Moustapha moo yittey sëñ Muntaxa mii fi nekk moom itam di di jawriñu liggéey bi noo ngi koy ñaanal yàlla gën ko fee yàggal te fayal nu Cheikh Moustapha nag barke Sëriñ Touba kon nag li ñuy def mooy euh, kaddu gi nu tàmbali waxtaan wi jox kaddu gi si Moustapha Diop Ndar moom la jox kaddu gi sëñ Moustapha Diop Ndar moom loolu rek am na lu mu am turam wi la ndax ku ne xam na diggante Ndar ak alxuraan waaye itam seen diggante ak Sëriñ Touba kon nag moom la jox kaddu gi sëñ Moustapha Diop Ndar bismillah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 mu ngi lay nuyu bu baax ci turu lajnatul ishraaf wal mutaabaa di kuréel gi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Muntaxa moo ko tànnoon ngir ñu ànd ak liggéey ba ca Poroxaan di ko gunge ci ay xalaat ak lépp luy tax liggéey ba gën a jëm kanam te sëriñ Muntaxa moom sëriñ Màmmoor Mbàkke Pakala mi jiite ko mu nekk ci biir ay membres yu bari kon ñu ngi lay nuyu ci seen tur di la ziyaara di jiital ci nuyoo bi samaahata cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbakki di leen ndokkeel ci at mu bees mii ñaan suñ boroom def ko muy atum jàmm atum xéewal atum yokkute ji bépp yiw atum mucc ci lépp luy am ndax fas yéene laa jottali li nga xam ne mooy résultat yi bàyyi ko ci sa njaboot gi alhamdulilahi li ko tàmbalee ci 2009 booba ak tey di fukki at ak ñeent saa buñ tolloo fii daaray soxna jaara ja ca poroxaan dana fi yebal si ay donga yoo xam ne jàngal nañ leen foofa ba jàpp ne mokkal nañu ñu indi leen fii nag ngir seet leen ren ji lu toll ci ñeent fukk ak benn ñoo fa bàyyi ko alhamdulilah ndax lim bi mësta àgg foofu te gis nañ ne ay at mu ngi nii lim bi ak mu nekk la yokk ren ji àgg na foofu di ñeent fukk ak benn yoo xam ne ñooy candidat ya fa bàyyi ngir ñu seet leen seet seenu mokkal euh, niñ leen di seete yëpp at mu nekk mooy rekk ni ko sëñ Omar waxe léegi Euh, dañuy wut ñeen fukki jàngalekat ak benn nu limub maam jaara yi toll rek lim bu toll noonu la ñuy wut ci ay jàngalekat kon ren ji wut nañu euh, ñeen fukki jàngalekat ak benn yoo xam ne dañ leen di tànne ci barab yu wuute barab yu wuute euh, niñ leen di tànne it ay charte la yoo xam ne kenn ku nekk day dëppoo ci ak charte boobu bokk na charte yi fokk nga doon ko wattu alquran yow mii téye leen bokk na ci say at bu mu néew fukki at ak juróom-ñett ndax bañ wattandiku ak ndawee bokk na ci it fokk nga jàngale alxuraan diir boo xam ne lu gàtt gàtt mat na ñetti at ndax téye expérience la kon ku la gën a jàngale moo lay ëpp expérience yi téye kon fukki chart la yoo xam ne moom la ñuy topp ci kiy téye yooyu charte ma wax ci la bokk su ko defee nag. benn maam jaara bu nekk e ñeenti sëriñ daara dañ ko téel sëriñ daara bu nekk mi ngi koy téel fukk xisib ak juróom e delloo ñu ko ñu jox ko moroomam kooko téyel ko fukk ak juróom ba ba kaamil bi di mat kenn ku nekk e ni koy téyele ab fiche nga yoon fiche boo xam ne dañ la ciy seetloo gagam gag dañ la ciy seetloo yàq maskaam dañ la ciy seetloo yàq xarafam dañ la ciy seetloo rungeem benn bu mu ci yi boo xam ne maam jaara bi def na ko des na ko marqué ci fiche bi ci fukki isib ak juróom yi euh, li nga xam ne mooy li ñu may maam jaara bu nekk mu gag ko mooy fukki gag ak juróom fukki gag ak juróom kenn du ko weesu kaamil bi kenn du ko weesu ci kaamil bi su ko defee rek maam jaara bi su taree noonu ba tari juróom benn fukki isib yëpp ñu boole fiche yooyu ñeenti fiche yi nag seet ba xam moom mii lii ñu ko mayoon ci ay gag ndax àgg na ca wala weesu na ko wala jege na ko foofu la ñuy àtte ak mokkalam waaye alhamdulilahi kéemaan gi ciy am te amaat ci ren jii mooy ki ci ëpp ay gag juróom benn gag la am ki ci ëpp ay gag juróom benn gag la am ci fukki gàgg ak juróom yooyu te am na ci fukk ak ñeent yoo xam ne gaguñu benn yoon fukki gone ak ñeent yoo xam ne gaguñu benn yoon kon kooku ak mokkal la kon téyal nañ leen ci noonu li ko tàmbalee démb ba fi tey démb lu mat fanweer ci ñoom tar nañ àggal ci bis bi mu desoon fukk ak benn fukk ak benn yooyu tey jii lañu xëy tari alhamdulilahi fukk yi jàll mu des kenn kon ñeen fukk ak euh, benn yi ñu fi indi woon ñeen fukk yëpp jàll nañu mokkal nañu ñeent ñi leen téyal kenn ku nekk saxal nga ne ñii de wat nuñ alquran ci wattu woon wu rafet woo xam ne day ànd ak tajwid di ànd ak maxaaraju xorob bu sell kon loolu euh, mooy li nga xam ni moo génne ci euh, li ñu tënk ci ñoom waaw euh, kon daal sëriñ bi mu ngi noonu kon ñeent fukki sëriñ daara ak benn yu bokkul fu ñu jóge ci njaboot gi ñoo di kon den seede seen njaboot gi ci seenum njàng waaye lii dañ ci fekk ko nii dañ ci seede waaw gàkk ku tari ba mënoo dem ki lay téyel topp la dellu si la topp la ba mënoo dem kooku mooy gàkk kooku benn point lañ koy jàpp koo xam ni kilee dafa yàq ak masque wala mu yàq xaraf masan ko yàq xaraf yaalamuuna su ne woon taalamuuna ki koy topp topp ko muy wax taalamuuna rek te kat yaalamuuna la kooku mooy yàq araf kooku dañ koy wàññil du toll ci kaaru kaaru kaaru point kaaru point mooy ñeenteelu xaaju point koo xam ne kii dafa yàq ak maska mel ni fu mu doon jànge an amta mu jàng fa an amtu kooku yàq nag maska kooku yi dañ ko fay topp ci genn wàllu point foo xam ne dem na fa runge ki koy téyal topp ko mu dem dikk munta jàll mu topp ko munta jàll su boobaa yit kooku dañ koy bindal gag muy gagu bu runge gàggug rumbe nag li tax ñu teqalee ko ak gàggug ñàkk mokkal kooku mooy gàggug rumbe ñaare mokk mën na faa nekk waaye nag rumbe moom dafa ànd ak alxuraan dana waral nag su fekkee bari na xale boobu daañ ko note ka ko doon jàngal ñu bàyyi la ko xel ni ko kii day mokkal na tari na àggal na waaye nag barab yi de moom rungeem bari na fi kon daal yooyu ñuy boole euh, euh, kaaru point bi ak genn wàll point ak gag mi nga xam ne point la ak gagu runge yooyu la boole yëpp di ko génne nag 15 yi di ko génne ci 15 yi moo tax buñ nee quinze rek sax du quinze lépp ay gat la waaye dafa am yeneen yuñ ci boole moo xam ne euh, yëpp dañ koy seet ci mokkal gone gi waaye alhamdulilah rabbil alamin ni ma ko waxee euh, juróom euh, ñeent fukk yëpp tare nañ tare bu rafet kenn rek moo ci ki war a dellu kon sëriñ bi daal loolu mooy liggéey bi depuis 2009 ak léegi fukki at ak ñeent la bi ñu seetee li nga xam ne moo fi tarisi alquran mokkal toll na ci ñeent fukki gone yu manqué benn ñeent fukki gone ak yu manqué benn te daara ji xëy na tey dafa nekk ci mbooloo juróomi téeméer la yu topp xëy na juróomi téeméer ak juróom fukk ak yu demee noonu kon dina ci ndokkeel bu baax ndokkeel Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo ko doon ne woon ci ku tedd ko Cheikh Mouhamadou Moustapha Bachir yàlla na yàlla yokk ay leeram ci leer ko alquran te euh, sëñ Mountakha mii it bàyyi ko ci kanamu liggéey ba lu yàgg yàgg yàgg te boole kook wér te yéen nit ngeen ànd kook moom te nu nit ñu ànd kook yéen ba li mu mébét ak li mu naan lépp mu xëy àgg ci teg ci loxoom ndokkeel bu baax jëwriñ yi nga xam ne ñoo fa nekk soxna maam xaw a dem di ki jiite njàng ma ak sëriñ Abou Jaxate yàlla na yàlla doole seral aw yaramam moom mi nga xam ne mu jiite direction ba di ndokkeel baax ñoom sëriñ Moustahine mi ak sëriñ Ousmane ak jëwriñ yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ndax ñoom it noppaluwuñu guddeeg bëccëg ndax résultat yu mel nii foo ko fekk du benn loxo du ñaari loxo du ñett loxo waaye mbooloo mu takkaloo mbooloo mu lëkkaloo ñoo mën a def résultat bi mel nii te mbooloo mu lëkkaloo moom it ñii dañuy féete fii ñii féete fii ñii féete fii mooy tax résultat man a am kon résultat bi dina tegtale seenu farlu seen taxawaay seen déggoo seen ah, joxe liñ am lépp ngir ah, sëriñ bi saas nekk muy am li mu bëgg kon ñu ngi dellu di la ndokkeel bu baax di ndokkeel njaboot gi ñaan suñu borom def ci seen xam gi barke te def fi leer ak nu mën a jëm di taxawal foofu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. madadtu lillahi yadi ليما تكر bokki taalibe yi sëñ Mouhamadul Abdullah nee na mi ngi leen di nuy yéen ñëpp di leen sant bu baax di leen ndokkeel itam ci seen teewaay bii ak seen jëf ju rafet jii ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu ne mi ngi can sant bokki jullit yépp sant bokki taalibe yëpp te sant mboolem ñi nga xam ne dugal nañ seen loxo ci jëf ju rafet ju tedd ji cant gi di day cant gu yaatu lool ndax ñi ko séq bari guñ bari moo tax te nekk ay kuréel yoo xam ne yu taqalikoo la kon moo tax cant gi munta ñàkk yaatu cant gi nee na mi ngi koy tàmbalee ci yàlla sunu borom mi nga xam ne moo nu yenkeewal nu doon ay jullit waaye dimbali nu ñu dool taalibe Sëriñ Tuuba yu tënku ci ndigal kon nee na mi ngi sant sunu borom moom mii waaye di seen sant Serigne Touba mi nga xam ne xéewal gii ak jàppandal gii lépp moo nu ko fàggul nee na mi ngi sant Cheikh Mamadou bashir mi nga xam ne ci moom ci lañ taw feexale ñu mën a liggéeyal soxna jaaratullahi maryaama busa mi nga xam ne moo waral lépp waxit ne mi ngi sant Cheikh Modou Moustapha mi nga xam ne xalaat bu réy bii yi tëju kawe ji mbir mu màgg mii mooy ki sunu borom dogal mu awe ci moom te moom mu nekkoon jëmm joo xam ne ab gisam ay xalaatam yaatu woon lool mu doon xalaat jamono yi nu toll liggéeyu maam jaare bii ni mu yaatoo xewal gi ni mu baree su fekkoon seex Cheikh Mouhamadul Moustapha ci jamono ji fagguwul e, mashroox bu demee nii kon jàpp nañ ne xéewalu maam jaare ñi mu ñëw ci seen loxo danañ jaaxle lool fu ñu koy dugal waaye nag mu ne mi ngi ci sant suñu borom bu baax di ci sant le Cheikh Mouhamadul Moustapha itam sunu borom. mi nga xam ne moo ko yankeewal xalaat bu rëy bii bi nga xam ne ab ndab la loo xam ne lépp lu ñëwati ci xéewalug maam jaara dana mën a dugg ci biir ndab lool yi te jàpp na ni itam du ko fees kon nag loolu ak xewal la ak cant la goo xam ne eh, sëñ Moussa bu fi nekkoon ba nëg nis di ko sant kenn ku nekk fekk xam na ne itam fa mu nekk xewal gii ma ngi ko fay fekk mu di ca sant di ca bég bu baax a baax ba jàpp nañ ne lépp loo xam ne am na ci ndam loolee fu mu ko mën a fekk rek ma nga cay bég bu baax a baax di ca sant bu baax a baax kon nee na mi ngi sant Cheikh di Moustapha moom mii waaye nag di sant mboole mbokk yi nga xam ne ñooy waa daaray Poroxaan ña fa nekk tàmbalee ko ca sëriñ Abou Souaïbou Madiana mi nga xam ne mooy jiital euh, daara ja ak soxna aw Awa Dem ak mboolem bokki taalibe ak bokki julli ya fa nekk di seen suba seen ngoon xëy ngont guddi ak bëccëg lépp ñu def ko ci eh, liggéey bu réy bi nga xam ne talatuñ dara ngir liggéey bi waaye itam yàlla sunu borom defal leen ci ndam lu toll nii waaye kon moom mi ngi leen ci sant bu baax a baax a baax a baax nee na it mu ngi sant sëriñ Isxaaxa Mbàkke moom mi nga xam ne ba yëf tàmbalee rek la Cheikh Mouhamadou Moustapha amoon xemem lool ci mu mën a tinki ko ci la mu nekk ba mën a ñëw jiite liggéey bii waaye nee na bi suñu borom dogalee loolu ba ba nëgëni si kenn ku nekk gis na ay tànkam ak taxawaayam ay xalaatam ak doxinam bëgg-bëggam ak pëstéefam lépp mu eh, jël ko aj ko ci liggéey bi nu liggéey bi di jëme kanam lu koy yaatal waaye lu koy gën a dolli ab taxawaay waaye itam lu tax ñi fi nekk itam di gën a mën a noppalu saa su nekk ngir luñ soxlawoo mu daal di leen di fekk fan nekk kon nee na sëñ Isaaxa itam yëg na ab taxawaayam bu baax a baax te xam ne fépp fu fi taxaw rek ci ndigalam la fi taxawee waaye fu mu fi taxaw itam ma nga ca ànd ak moom nee itam mi ngi sant bokk yi nga xam ne lii li muy rëy rëy suñ ko defee ba noppi ñoom ña koy sa ñooy ña koy saytu loolu tàmbalee ci sëriñ Muntaxa moom sëñ Maamoor Paka la ak mboolem mbokk yi nga xamante ne ñoom la àndal eh, seen taxawaay boobu yi nee na itam mi ngi sant sëtam yi ak doomam yii buñ ca waxee sëriñ Mouhamadou Moustahine mi nga xam ne moom fu ba daara ji tàmbalee ba nëgëni si lépp loo xamante ne nii ñu ngi ko ci yëkkati ma nga ca kanam te boobaak léegi saa su nekk ak waxtu wu nekk gis nañ ne da ciy gën a am ab taxawaay bu gën a rafet waaye da ci ab taxawaay gën a bu gën a mat ak mboolem mbokk yi nga xamante ne ni moom itam moo ci seen jëwrin ñu ànd ci ak moom nee na itam mi ngi sant waajur yi yi nga xam ne doom kenn ku nekk xam ne fa mu toll waajuram waaye mu gi mën a muñ seen doom yooyu ba man leen a bàyyeeg ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoom lañ koy teg ci seeni loxo te bu suñu leen bàyyi mu amuñu lenn luñ cee xalaat yaatu man ba ñoom lépp luñ bëgg a def ci ñoom ñu man ko caa def te ci am benn xalaat nee na waajur yooyu itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax di xam ne it ñoom niñ def niñ def noonu rek la ndax lu tax mooy xam nañ ne seen doom yii lu baax rek lañ leen bëggal waaye xam nañ ne fee ñu leen yóbbit lu baax rek lañuy def ci ñoom kon nag nee nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax ginnaaw itam bu mu sàkkoo ci ñoom ñu gën a sant seen boroom gën a sant sëriñ sëriñ euh, Tuubaa bu baax a baax te itam dollee gën a sant ñi nga xamante ne ni ñoom la xale yi nekk ci seeni loxo kon nee na waajur yi itam ñu ngi leen sant bu baax a baax Cheikh Mouhamadul Abdoulaye daa wax ne liggéey bii sëñ Moustapha bi mu ko tàmbalee dox ca doxin wi mu ca dox ba yàlla dogal mu wàcc ab liggéey liggéey bi dugg ci loxo loxoy Seex Moodu Muntaxa nee na mu ngi seere bokk yépp di leen fàttali kàddu yi nga xam ne moom la Seex Moodu Muntaxa waxoon mooy liggéey bii dafa wax ne moom da cee da cee tayle boppam kon nag képp koo xam ne bëgg nga koo tayle da ngay fexe ba liggéey bi lam bëgg ci moom ak la ca soxna si bëggoon te muy liggéey bi gën a jëm kanam gën a tegu ci aw yoon waaye ndam di ci gën a am kon képp koo bëgg a jàppale na ko jàppale ci loolu kon nag du mën a ñàkk ñun bokk yi nga xam ne ñun lii jëf ji ñun lañ koy defal ñun ñëpp ñu ànd itam doolee sant Seex Mamadu Muntaxa te doolee ñaan li nga xam ne moom la lisaanul xaal di ñaan mooy yàlla sunu boroom dolli ko ak tal dolli ko ak wér ba dolli ko kàttan te bàyyi ko sagoom te dolli ko ay ndam ci liggéeyu Serigne Touba bi te mu jiite ni ci ay at yu yàggaat lool ci barke Serigne Touba la ñë moo Modou Ablaye nee na ñun ñëpp nañu ànd ñaan loolu ndax loolu xam na ne bu amee itam suñ njariñ la ñun ñëpp te nit ku nekk nag bu dee borom xel luy njariñam war na koo xam bu baax a baax te fa xam ko sàmm ko te fonk ko kon nag. nañ ñun ñëpp ànd ñaan loolu yi ginnaaw loolu itam sëñ Mamadou Ablaye nee na du fàtte munta fàtte sëfoor si nga xam ne saa yuñ soxlaa eh, maam jaare yi dem ñoo leen di yóbbu waaye saa yuñ soxlaa maam jaare yi dellu siwaatanam ñoo leen di indi kon nee na ñoom itam seen taxawaay noppal noppal gi leen noppal ci li leen waroon ci transport bi xam nañ ko bu baax yëg nañ ko bu baax nee na itam loolu du mën a ñàkk bàyyi Serigne Dieng mi nga xam ne moo da moo moo moo leen daan jiite ñu fàttali ko ci jataay bii dolli ko ñaanal yàlla sunu borom dolli ko yërmande ak njégal ca fa mu nekk ci barkeb sëriñ bi nee na itam du mën a ñàkk ci jotaay bii ñu fàttali ci suñ jàmbaar ja muy soxna ay Diaye Badaloo moom dey kenn ku ne xam na ne lam am euh, la ko waroon ci liggéeyal maam jaara jëmbatoo na ci fulaam defoon na ca la man lépp ba yàlla sunu borom dogal mu moom kon nag ñi ngi ñaan lam doon def lépp yàlla suñu borom nangul ko ko te mu nekk itam mu nekk ak texe ci moom ci barke sëriñ bi nee na du mën a du ñàkk itam du mën a ñàkk mu fàttali e, jëwrin ju mag ji nga xam ne ba liggéey bi tàmbalee ba nëg ni sii fu bi mas a nekk saa yuñ ci mas a ci mas a soxla su agsee ci moom loola day daal di mat fa saasa te mooy bàyyi daam surang kenn ku nekk xam na ab taxawaayam ci kër gi waaye kenn ku nekk xam ne ab taxawaayam ci liggéeyu Serigne Touba kenn ku nekk xam ne ab taxawaayam ci daara maam jaari ji ak waxtu wi wu mën a doon bu loolu jàllee nag nee ñi nga xam ne ñoo war lépp mooy xale yii nee na sëñ Modou Ablaye nee na li ngeen di doon doon doon ay xale ci tolluwaay bi nee na mi ngi leen di sant bu baax te bëgg ngeen fàttaliku kàddoom yii ndax lu tax mooy nañ xam ne mboolem ñi sonn yépp seen coono boo bii ci yéen ñi rek la jëm si liñ bëggoon ci yéen te loolu la ca jëkk am nañ ko mooy alxuraan nekk ci yéen kon nag yéen itam la leen ca war mooy sàmm ga kon na ngeen xam coono yi nga xam ne mboolem bokki jullit yi ak bokki taalibi yi ñu fi lim yépp coon sonn nañ ko ca coono booba dara warul ko yéen ñii kon nag loola lu ngeen ci doon doon gone na ngeen ci bàyyi seenu xel bu baax ci lu koy sàmm ak lu koy gën a rafetal ak lu koy gën a dëgëral ba mu bandee na rëcc ndax alxuraan sàkku ko yàgg na lool sàkku ko metti na lool waaye nag am ko ba noppi e, di sàggan ba mu rëcc la loolu moom dara jaru ko kon nag na xam ne jumtuwaay yi nga xam ne day fàbbi am xel jumtuwaay yi nga xam ne day yàq jamono jumtuwaay yi nga xam ne day yàq eh, eh, waxtu bari na lool te fee ngeen nekk doxal nañ seen digganteeg loola ba ngeen mën a am lii kon fu ngeen fi mën a jëm na xam ne jumtuwaay yooyee amul njariñ te da leen di yàqal da leen di xatal kon nag bu boobaa na ngeen ko moytandiku bu baax a baax muy dollee dénk nag eh, waajur yi nga xam ne su ngeen jógee fii ci seen loxo ngeen di jëm nekk ngeen fi juróom-ñetti weer wala fukki weer ñu fas yéene la delloo seeni waajur ñaari weer rek ngeen dellu siwaat incha allah kon nag ñaari weer yooyu raxasoo nañ leen ba ngeen ba ngeen set wecc ñu aar leen takku leen tilimu leen naxu leen kon eh, waajur yi ñooy ñi nga xam ne ñoo war a sàmm loolu ci yéen ba bu ngeen di dellu siwaat itam ngeen mën a àndaale loolu ñu yàlla suñu borom dogal eh, lañ bëggoon ci ñoom ñu am ko ba mën naa am yoon wii mooy doon seen wàcc ñu delluwaat ca nja ñu delluwaat ca waajur ya ñoom itam ñi ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom barkee la li nga xam ne moom lañ fi jëlee ba fu ñu mën a jëm itam yóbbaale ko fa loola mooy ak leer goo xam ne ni ko suñ Moussa bëggee woon day leer goo xam ne day wër euh, Sénégal gépp waaye day wër àdduna bépp yar bi nga xam ne yàlla suñu borom def na ko ci yéen ba bu ngeen demee ku ci mas a dellu kër sa këri baajuram ku nekk ay waajuram gis nañ ci moom yar boo xam ne wóor na leen lii daara ji moo ko def kon loolu itam ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom sëñ Modou Ablaye nee na mi ngi ñaan yàlla suñu borom yar boo bii yàlla gën koo jëmbat ci yéen gën koo saxal ci yéen ba ngeen mën a gën a jariñoo eh, li nga xamante ne ni moom ngeen fi bàyyi ko yéen ñi nga xam ne kon yéen a ngi dem ca fas yéene dellusiwaat nag lañ leen di dénk rek di ko dénk seen waajur mooy ngeen gën a gën a gën a góorgóorlu bu baax ci sàmm li nga xamante ne nii eh, eh, yàlla sunu borom dogal na eh, ñu def ko ci yéen loola nag mooy moytandiku ni ñu ko waxee rek jumtuwaay yi moom xam nañ ko daanaka jërul tudd kon ñu ñëpp nañ ko ànd di ko moytandikoo moytandiku loo lu baax a baax ginnaaw loolu itam sëñ Modou Ablaye wax na ne loolu mi koy wax ci làmmiñu sëriñ Isaaxa Mbàkke mooy lan liggéey bi day liggéey bu yaatu ni mu ko ñaanee muy ay couleur yu bari waaye kenn ku nekk xam na ne waa bitim réew daayira yi fi nekk ak fédération ya fa nekk ñu jàpp lool lañ ci ci liggéey bi mais jàpp koo xamante ni itam xam na ne daara ji duñ leen fàtte mukk te daara ji yëg na ko bu baax a baax waaye noonu muy sante mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew ci jàpp ci liggéey bi itam noonu lay sante mbooleem daayira yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mii ak fédération yi nekk ci biir réew mi te ñuy jëmm yoo xam ne ba daara ji tàmbalee leen tàmbali boobaak léegi te dañoo gis ne lu tàmbale woon ci ñu na mat na junni léegi dem na ba mat ñeenti junni loolu kenn ku nekk xam na ne loolu ma ngay gën a jëm kanam te na muy gën a jëmee kanam itam seen pësteef ak seen jàpp ci daara ji noonu lay gën a jëmee kanam kon nag nee na ñoom ñëpp mi ngi ba ànd di leen sant xat na ne ku lim juum waaye nee na daal ni ko bëggee woon mooy képp koo xam ne jàpp na ci